dinaa la woon maa la gën a jonge yow Binta mënoo sax maa la changé sa tur tudd la Binta Boubacar Ndour ñun lii la ñu wax ñun groupe njëkke ñun lii la ñu wax te maa yëg nga ni man li ma wax la ñëpp wax eh, man rek li ma wax la ñëpp wax ah man maay porte parole lu jabar yi dangeen maa safoo faale ma sama yëfaleen ñor dara safu leen lu dul ñun groupe njëkkee li ñu ñor rek moo leen ñor yéen demu leen dikku leen taxawaaluwu leen wóoru leen ba ràpp te lii nag lañuy soxla ci jigéen du leneen teraanga gi moom dañ koy jël sax tegee ko na le de ndax te agogo macha allah buñ kenn catu asalaamaaleykum tey la anniversaire sama chéri bi Binta Sakho chéri Boubacar Ndour yaay njaga chéri Abibatu Ibrahima lii la yàlla dogal waa Binta yow loo dund doyul loo baax doyul xale bu baax bi xale bu rafet bi xale bu jekk bi eh macha allah chéri buuba mbaa xam nga ne yow la wër ba guddi jot rek ñu yor ndànk dem tëddi bintaa dundal loo dundu doyul yal na yàlla barkeel njaboot ji li nga bëgg yaa ko xam ci sa diggante ak sa borom kër yàlla na la ko sunu borom defal baax nga yaru nga bëgg nga ñu jox nga ñu cër damay dox ci dëkk bi ñu ma naan abinduur li ngay waxal sa jabaru frair yi daf neex ku ko ci amul yàlla na la ko suñu boroom may ndax ku bëgg sa frère bëgg ki mu la indil sunu frère yee tànn li gën ci jigéen ñu indil ñu ko moo tax tey nag ma delluwaat ci Binta laa jonge Binta tey di nga baal ma damay changé laa jonge bind Binta mu Boubacar Ndour chéri yu suma jigéen chéri prince Makhtar chéri prince Ibrahima Ndour chéri Abibatu Ibrahima mi toog bintaamu Boubacar Ndour yaayu njaga yow lañuy waxal sa bis bii day xumbu tadagan yaa fi defan ah? bu ñu waree ci dëkk bi ñu ñu naan seen jabar yi seen jabar yi seen jabar yi mais ñun suñu xol yi day sedd ah suñu jëkkër yi suñu euh, frères yi ñoo ñu indil jabar yi gën ci jabar macha allah toog rek fañ leen toogloo xam nga bu ñuy def vidéo yi lan la dañ leen a sëyloo ñun ñi nga xam ne ñooy seeni ay njëkke ndax njëkke bu baax day gërëm jabarul frère am pour mu gën a toog ci sëy bi yàlla na barkeel loo dund doyul te buuba nandite la daa comprendre ne que ani inta buuba nandite la moo tax mu xam ne que anniversaire mariage ba is buuba anticiper anniversaire u chéri Koko Binta la euh, Binta chéri Bouba boole kook bu mariage ba lépp nekk ci mois de mai ah, Bouba yow qui es-tu ah picc picc ndobin qui es man kontaan naa Binta li ci des na xam nga fiñ koy yeggalee te yàggatul dinañ xam fi koy yeggalee maak yow et eh, dama dëkk ci yow dundal loo dund doyul ah xale bu baax bu yaru bi xam nga dañ naan jigéen bu amee sacré yàlla rek booy cippal man boo reetaanee rek ak jaabante ñëw tegal buuba oh sama xol bi day glace dundal waayu chéri yi Abindoo